asalaamaaleykum ba jàmm ngeen am mbokk Sénégal ba jàmm ngeen am mbokk Yaraax man la Arona Sy artiste rappeur représenté G Black ñu gën ma xamee ci Ron Man bon dama doon ñëw juste pour wax ci affaire feebar bi muy coronavirus lu am la te day raye gis ngeen nu mu rey ci àdduna bi nañu sàmm digal yi nga xam ni moom lañu ministère de la santé digal muy lu ci mel ne raxas sa loxo ak euh, saabu raxas ko ba bu baax nag ruq-ruqaat yëpp bul bàyyi dara bu weesoo loolu ñu ut suñu gel hydroalcoolique bu ko defee dinañ mën a fagaru bu baax ci feebar bi wàññi joxante loxo yi saafonte yi nga xam ne jaru ko rassemblement yi nga xam ne amul njëriñ tamit parce que instant bi nii l'heure est grave te feebar bi day wàll te nee nit ñi ñoo ko yóbbu moom yóbbul boppam. sama gars yi l'heure est grave parce que gis ngeen feebaru coronavirus bi. lu mu def ci àdduna bi def na ay ravage ay mor yu dul jeex ñëw na nag suñu dëkk dañu jël suñu matukaay ñu déglu experts yeeg ñu nekk santé bi ak nguur gi lu ñuy wax ñu jëfee noonu noonu la ñu mën a def pour xeex feebaru coronavirus bi. di wax gars yi am ñu fagaru ñu respecté consignes yi comme ni ko ministre yi waxee fu ñu toll di raxas suñu loxo ñu wàññi nuyoo yu bari yi xam nga soo waree ñandu tamit nga def ni consignes yi gars yi wax nañ ko fépp quoi. mais pour man premier vaccin bi mooy discipline locale na ñëpp am yar ku ñu wax nga toog sa gaale nga toog sa gaale ngir yàlla war a suuli quoi. donc dañ leen di ñaan en tant que seen doom en tant que seen i mbokk ñuy ñaan kullu sénégalais mu jël ay précautions yi ci war ñu confinement ñu ngi phase 1 donc nañ ñaan yàlla maanaam mu yem fi ku ci nekk na toog gàlleem bu amul lu muy dox lu am importance ngir yàlla na toog gàlleem ku ci nekk bu xëyee lu mu war a def na ko jéem a joxante beeg mbokk meeg ataaya jeeg yépp nice na mais sunu bakkee na ko gën please stay at home peace